wasalaatu wasalaamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ixwaani asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu wa marhabin bikum ma al anbiya alayhim asalaatu wasalaam mbokk yi ginnaaw bu nu tàmbalee ci tur yàlla tabaraka wa taala ñu ngi julli ak a ñaanal ci sunu yonent muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ñu ngi dellu siwaat ak yéen ci qisasul anbiya mooy jaar-jaar wala nettali yonent yi alayhimu salaam te ñu ngi ci istuwaaru aadama alayhi salaam bu nu delluwaatee ginnaaw tuuti danañ mën a jàng darsu tey borom bi tabaraka wa taala bi mu joxee malaaka yi ndigal ne nañu sujjootal aadam dafa mel ne borom bi bi mu ko santaanee am na lu tax mu santaane ko mooy borom bi bi muy bind aadama am na discussion benn xiwaar bu doxoon diggante borom bi tabaraka wa taala ak malaaka yi ba ñoom ñu laaj yàlla ne ko ndax da ngay def ci kaw suuf ku yàq suuf yàlla xamal ne leen ne xam naa lu ngeen xamul jamono boobu la borom bi tabaraka wa taala jël aadama alayhi salaam daal di koy jàngal mboolem tur yi mboolem lépp loo xam ne aadama alayhi salaam dina ko aajowoo ci kaw suuf boobu borom bi tabaraka wa taala xam na ne aadama alayhi salaam dana wàcc aadama alayhi salaam dana wàcc ci kaw suuf moo tax yàlla xamal ko mboolem baat yi nga xam ne bu wàccee dina ko aajowoo waaye yàlla xakim la du def dara ci hasard lu mu def rek am na lu tax yàlla jël aadama ak malaaka yi dajal leen ci benn saal dafa leen examen comme ñoom dañoo wax yàlla ne atajalu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bi hamdik wa nuqaddisu lak yàlla ne leen inni alamu ma la taalamuun léegi nag yàlla dugal leen ci benn saal di leen def examen ñoom malaaka yi ak aadama malaaka du lekk malaaka du naan malaaka du nelaw malaaka du góor du jigéen du góor ba muy am jabar du jigéen ba muy am jëkkër aadama mooy lekk mooy naan mooy góor moo soxla jabar moo soxla tool pour bay moo soxla kër pour dëkk yàlla xamal ko bagage yi àdduna yëpp moo tax malaaka yi bi yàlla yëkkatee bagage yi di leen laaj naan leen lii lan la malaaka yi mënuñu ko xam lu tax parce que ñoom aajo woowuñu ko moo tax mënuñu ko xam gis nga tey am na outil bagage yoo xam ne boo ko yëgoon ci mécanicien yi nga leen lii lan la dañ lay tontu facilement boo jëloon bagage yi ñuy toggee ci biir waañ nga yóbbu ko ci góor ña lii lan la am na yu ñu la dul tontu waaye am na bagage yoo xam ne boo ko yóbboon école nga laaj élèves yi lii lan la dañ lay tontu lépp bam jeex ñu nekk bagage yu ñuy aajowoo dañ koy xam malaaka yi ku nekk loo aajowoowul sa yoon yenn saa yi mën na cee bañ a nekk doo ko faale te fekk sax mu nekk ay terre à terre yu ndaw a ndaw malaaka yi bi leen yàlla laajee xamuñ lu yàlla yëkkat duñ xam aadama nag lu yàlla yëkkati laaj ko ci bagage yi lii lan la mu ne kudd kudd kan moo koy ku ko soxla kuy lekk kuy togg lii lan la mu ne paaka lii lan la mu ne sajaada lii lan la mu ne nangam lii lan la mu ne nangam al asma yàlla mu ne wa allama al aadama al asmaa kullaha thumma aradahum ala al malaika fa qaala ambi'uni bi asmaai haula in kuntum sadiqin bu fekkee yéen yéen a wax dëgg xamal leen ma tur yi kenn ci ñoom mënul tontu kenn ci ñoom xamul ñoom malaaka yi yàlla daal di delloo aadama bagage yi aadama daal di tontu yépp ci jamono boobu nag la yàlla ne malaaka yi ak iblis yéen ñëpp ah comme Adama nag léegi dañ doon examen Adama moo jël coupe bi Adama raw na leen parce que ndokkeel leen ko malaaka yëpp daal di sujjóot iblis bañ ñi ngi woon ak yéen ba Adama bi mu duggee aljanna yàlla tabaraka wa taala bind xawaa ci faaru càmmoñam aadama nekk aljanna yàlla may ko xawaa mu nekk soxnaam yàlla mu nekk uskun anta wa zawjukal janna iblis fekk leen fa ba fas yéene leen fa luqati génne leen fa ñëwul rek pour ne leen génn leen waaye dafa ñëw def leen defal leen ay dig jox leen ay proposition bokk na ci borom bi tabaraka wa taala lum ñuy nettali ci alquran mu ne iblis ñëw na ci ndogalal yàlla dugg aljanna yàlla moo ko dogal de iblis ñëwul ci bànneexi bakkanam rek dafa dajeek ndogalu yàlla tabaraka wa taala su neexul woon yàlla iblis di dugg aljanna mais dafa neex yàlla iblis daal di dugg bi mu fa duggee mu daal di ñëw ci aadama ak awa ñoom ñaar ñi nga xam ne yàlla bi mu leen bindee def leen wax ne bu leen jege garab gi wala taqraba hazihi shajara garab gi bu leen ko jege wax dëgg yàlla boo nekkee ci kër ñu permettre la nga laal lépp wala ñu ba daal lay embauché ci benn service ñu ne la lépp defal waaye nag wax dëgg yàlla bureau patron bi bul fa dugg wala siège patron bi bul fa toog mais lu la neex defal mais seize bi moom bul fi toog wax dëgg yàlla dégg nga de war ngaa gore alays kazali bu doon lekk la ñu tegal la plat bi ne la lekk li waaye benn pombiteer bi bàyyi ko fi war ngaa mën a lekk li bàyyi fi pombiteer bi loolu da ngay lekk lépp di nga ko fi bàyyi très bien da ngay lekk lépp di nga fi bàyyi pombiteer bi da ngay lekk lépp mu nga yàlla mu ne aadama yàgg awa lekk leen lépp lu leen neex waaye amma garab gi wala taqraba hadihi shajara lu tax bu ngeen ko jegee rek fa takuna min azalimin da ngeen bokk ci tooñkat yi iblis daal di ñëw bi mu ñëwee wa qaala mu ne leen ma nahakuma rabbukuma an hadihi shajara illa an takuna malakayn aw takuna min alxaalidin yamu ci de wa qaasamahuma iblis ñëw ci ñoom ñaar leen est-ce que xam ngeen lu tax yàlla mu ne garab gi bu leen ko jege garab gi bu leen ko laal est-ce que xam ngeen ko aadama ak awa ne tekk mu ne su ngeen gisee yàlla tere leen ko dafa bañ ngeen nekk ay immortel ndax garab gi ku ko lekk doo dee doomu aadama ni mu bañee dee ñu ne ko lii boo ko defee doo dee est-ce que est-ce que yaakaaroon ngeen ne bu doon ñun la duñ ko def duñ ko lekk ñun ñi bu doon ñun la laa wax iblis wax ñu loolu ne ñu xam nga lu tax yàlla wax ko ñu ne ah mu ne yàlla dafa xam ne bu ngeen ko lekkee du ngeen dee ku nekk natt ko ci sa bopp nag balaa ñuy yedd aadama nañ xool suñu bopp bu doon ñun la te kii wax ak yow waxul yow rek ci baati bànneex mais daf lay wax di xulli bët yi di waat di giñ loo yaakaar wax na dëgg yamu ci mu ne leen da ngeen di nekk ay immortel mais yàlla daa bañ ngeen nekk ay malaayika ngeen am ay laaf di naaw di ànd ak malaaka yi moo tax mu ne leen bu leen ko lekk yemul ci loolu mu daal di giñ mu ne leen billahi wallahi wa tallahi mu giñ bu doon ñun la nu ñuy def ñun ñun lu gën a ndaw loolu la ñuy wax rek ñun mënuñu koo def wala aadama moom li mbir yi garaaw garaaw garaaw garaaw garaaw aadama benn bàkkaar dong la awa benn bàkkaar dong la am iblis benn dong la am ñun ñaata lañam ku nekk xoolal sa bopp iblis benn bàkkaar la am pare yàqule aadama benn bàkkaar la am pare xawa benn bàkkaar la am ñun ku nekk ñaata nga am kon ñun bu doon bu doon ñu bu ñu waxoon garab gi bu leen ko bu leen ko lekk ñun waxuma la dinañ ko lekk danañ danañ ci yéeg xolli ko lekk ko gor ko togge ko aadama moom ci lekk rek la yem borom bi tabaraka wa taala mu ne ba iblis giñee daal leen di waat ba pare yemu ci mu ne leen wa inni lakuma la min annaasihin wallahi man dama leen di laaya biir man dama leen a bëgg yéen samay xarit ngeen su ngeen gisee coono gi yépp mat ma am ko ci may waataka di wax aka di expliquer dama leen a dama leen di laaya biir rek léeg-léeg nga am xarit boo xam ne bu la bëggee dugal ci giraawaal yi da koy jaral mu waat da koy jaral mu sonn ci mais da koy jaral mu naan xam nga man bu doon nekkoon ne sama xarit lii du ma ci fekk de soo gisee ma ciy sonn nii nangam ak nangam ah, léeg-léeg nga mu am ci dëkk bi fii ñoo xam dañ lay dugal ba nga dugg te ci ay waat la ñuy jaar ak ay di la jéem a xoolal waa ji nga xam ne misaal waa ji nga xam ne dafa am ngénte amul lu mu ngénte ñu ne ko jaayal sa terrain di koy jaayaloo terrain bi lan la koy wax non alal du faj dee gàcce lay faj te gis nga lii yaa ko liggéey ah yaa koy ñàkk mais du la ñàkk ëllëg ak si biir mun ngaa am lu ëpp lii soo gisee man ma ci sonn sa gàcce laa bañ ba waaji jaay terrain ngir ngénte wala gisu leen loolu ak yeneen ak yeneen ak yeneen yoo xam ne mun nañ ci indi ay misaal fukki junni fekk xam ngeen ne ngénte ngénte jarul jarul jarul sax jaay sa yére mënoo ko wàcc na la saa yoo ko mënee nga def ko yaa na waaye dañ la dugal tey ci bàyyee la loo xam ne te loolu rek laa ci boobu rek laa ci laa ci jël mën ngeen jël yeneen ak yeneen ak yeneen wala dëj dëj xoolal yeneen ak yeneen kon mbokk yi iblis yemu ci mu ne leen dama leen di laaya biir dama leen di yee borom bi ne fadallahuma bi gurur ndeysaan tegtal na leen wor nax na leen orienté na leen ci caaxaan jubal na leen ci lu amul njëriñ tegtal na leen lu amul benn fulla amul faayda wor na leen fadallahuma tegtal na leen ñoom ñaar jubal na leen bi xuruuren ci ay wor yoo xam ne dara du ci dëkk fa lamma daaqa shajara ndeysaan ba ñu yootoo ñoom ñaar daa di lekk ba ñu mos affaire yi mu saf ci seen làmmiñ rek borom bi tabaraka wa taala daal leen di woo xam nga ñu bëri dañ naan awa moo dagg daal di lekk wann moo tax muy gis baax ñu ne aadama dafa lekk yi sàqami bëgg a wann yàlla yónni jibril mu ñëw xoj ko moo tax góor ñi am lii loolu nekkul lu wér li wér daal mooy yàlla dana ñoom ñaar ñépp ñoo lekk fa lamma zaaqa ashajara ñoom ñaar ñoo lekk ah ñoom ñaar ñoo lekk de ñoo lekk ñëwul ci hadis yoon bi saa salaam mu ne iblis kii aadama dañ koo xoj awa dafa wann ñu ne awa li mu wann moo tax muy ëmb di am doom aadama bu bu wannoon rek day am doom loolu wérul borom bi ne ñoom ñaar ba ñu mosee garab ga ndeysaan badat lahuma sawaatihima ndeysaan seeni awra commencé feeñ seen sutura seen li muuroon seen awra yi daal di naaw léegi nag xool leen mbokk yi fii aadama ak awa ñoom ñaar ñu nekk aljanna est-ce que am na ñeneen ñu fa nekk ah am na ñeneen am na ñeneen ay nit ñu fa nekk amul waaye xoolal ñoom ñaar seen awra ngi feeñ ñu commencé dagg ay xobu garab di nëbb seen awra ndax bugguñu seen awra feeñ ci àdduna nag awra yaa ngi ci biti dum awra yi ñu ngi ci biti te fii àdduna dafa am ay nit ñëpp a ngi fi lépp a ngi fi ala àjjana fa ñu nekkoon amul dara te ñoom am nañu kersa jàkkaarloog yàlla seeni awra di feeñ tey ay doomi aadama ñu ngi ne dugg seeni awra di feeñ yàlla jàkkaarloog ñoom wala aadama ak awa ñoom bi seen awra feeñee amoon nañoo kersa te lii di ñëw dina ko wone borom bi mu ne seeni awra feeñ na wattafiqa yaxsifaani alayhima min waraqil janna ñu tàmbali ndeysaan di nëbbatu di dagg ci garabu aljanna yi di taf ci seen awra ndeysaan ndax bugguñu yàlla xool leen seeni awra di feeñ léegi nag kon ñun ñi nga xam ne dañoo nekk di dund yàlla jàkkaarloo ñun 24 heures sur 24 sunu awra yi ne dung ci biti nag beneen aaya borom bi tabaraka wa taala mu ne foofu rek ci saase bi ñu lekkee garab gi wa naadaahuma rabbuhuma seen borom daal leen di woo soo demee ci bible bi bible bi nga xam ne dafa boole ñeenti téere yi Matthieu Paul Jean ak Luc ba pare boole ancien testament nouveau testament boobu boo demee ci bible boobu da ngay dégg ñu ne Adama ak Awa bi ñu lekkee garab gi dañoo daw nëbbutu yàlla ñëw aljana di leen seet naan Adama ay na anta Adama foo nekk Adama nëbbutu te alxuraan xoolal lu mu wax dañoo lekk rek yàlla daal leen di woo wa naadaahuma rabbuhuma loolu mooy li xel nangu waaye buur bu toll na yàlla dina ñëw naan Adama foo nekk di di daan ni garab yi di xool kon kooku manqué la waaye xoolal alxuraan dane dañoo lekk rek yàlla woo leen allahu akbar aadama yaag awa terewuma leen woon garab gi wa naadaahuma rabbuhuma mu ne leen alam anhaakuma an tilkuma shajara ndax terewuma leen woon garab googu ndeysaan terewuma leen ko woon lii daf ñuy xamal ne yàlla su doon nit la kuy sol yére yére bi am poos poosu yàlla kenn du ci dugal loxo loolu la ñu lii di jàngal lii daf ñuy jàngal ne nguurug yàlla gi kenn mënu cee def lu la neex léeg-léeg nga dégg ci ci réew mi ay nit wax wax yoo xam ne day mel ne ëllëg yowmal xiyaam dañuy wañ dañuy wañ loxo yàlla ne ko nii wañ ñaar ko ne ko yàlla lii doo ko fi defee mbokk yi aadama lan la ko yàlla waxoon aadama lu ko yàlla waxoon bu lekk garab gi mu daal di lekk moom kese moo lekk moo kan ak awa awa lanam la soxnaam la ha mu daal di lekk ha bi ñu lekkee ñoom ñaar lan moo leen dal lan moo leen dal bu ñu lekkee ñoom ñaar lan moo leen jot seen awra moo tàmbali génn bi seen awra génnee nu ñu def nu ñu def li nga yaakaar da ngeen toog fi rek dina raw bi awra yi génnee nu ñu def dañoo dagg xobu garab yi di ko nëbbu ci seen yaram après lan moo xew yàlla woo leen bi mu leen wooyee lu mu wax mu ne yéen ñaar ñi ndax terewuma leen woon ngeen lekk garab bi ndeysaan ñu am kers ñoom ñaar ñu rus ñu am problème ndeysaan yàlla mu ne terewoon naa leen ko ma wax leen ne seytaane mii inna seytaana lakum adu mubin seytaane seen noonu la na ngeen ko moytandiku ngeen bañ a dégg li ma leen wax waaye xam ngeen lan moo tax aadama ak awa daal di rëcc ak lan moo tax iblis perte iblis moom bi ko yàlla ne iblis su jootal mu bañ dafa ngand ngand lu rëy rëylu waaye iblis bi ko yàlla ne woon iblis lu tax su jootoo su noonu ah yàlla maa ngi jéggalu de maa juum rek te yàlla da koy baal parce que yàlla buur bu baax la boo jéggaloo mu baal la ndax lan aadama ak awa bi leen yàlla ne yéen ñaar telewuma leen woon garab gi waxoon naa leen ngeen moytu seytaane seytaane seen noonu la lan lañ wax ndeysaan dañoo jéggalu ñu ne rabbana zalamna anfusana fa in lam taxfir lana wa tarxamna lanakunanna min alxaas ay yàlla ay yàlla boo ñu baalul ay boo ñu jéggalul danañ bokk ci ñi perte yowmal xiyaam dañuy dugg safara ñoom ñaar loolu moo leen loolu moo leen muccal ñoom ñaar parce que lan dañoo jéggalu dañoo tuub amma iblis yàlla ne aba wastakbara dafa bañ ba pare ngand ngandulu yàlla woo ko ne ko yow loo tere sujjóot qaala ana xayrun mun mu ne kii maa ko gën waaw ndax man giir laa moom giwél la maa ko gën ndax man giir laa moom uude la ndax man tooroodo laa xam nga tooroodo moom cubbal loola ñoom paaba xam nañ lool ana xayru minhu maa ko gën lu tax ndax man damaa xees moom dafa ñuul ndax man patron laa moom baadoo la la ndax man damaa bokk ci yax bu rëy moom dafa bokk ci yax bu sew waaw iblis moo wax loolu gis ngeen mooy tundiku leen de bu kenn wax nit maa ko gën kenn gënul kenn ñun ñëpp a yem annaasu sawaasiya ka asnaanil musli ñun ñëpp a yem comme ba ñu peñe kullukum min aadama wa aadama min turab ñun ñëw aadama suuf lañ ko bindee ñun ñëpp ci aadama lañ bàyyee ko ñun ñëpp a yem kenn gënul kan xam ngeen kan moo la gën ku la dàq jaamu yàlla inna akramakum inda allahi atqaakum yàlla nee na ki gën a baax ci yéen mooy ku ëpp alal ku ëpp doole ku gën a xees ku gën a ñuul ku am doole kooko kooko gën déedéet yàlla mu ne ku ragal yàlla moo gën ñëpp xoolal bilal nit ku ñuul la Afrique la jóge Aba Taalib Aba Taalib lan la arab Quraysh Abu Jahlin lan la arab Quraysh ana Bilal mi ngi aljanna ana ñaar ñe ñi ngi safara te mbokk yonent bi la kon ana ngëneel ngëneel mu ngi ci ragal yàlla ku lay jaay yax bu réy rek wala di la jaay amam wala di la jaay taar xaar ko ci bàmmeel rek xaar ko ci bàmmeel benn buur bu bu bu nekkoon buur ay maamam nekk buur ndeysaan moom bi mu nekkee fekk faloogul mu daal di démissionné ca nguur ga daal dem dëkk ci armeel yi ba ay maamam nguuru ba nguur gi jeex dëkk ba ràpp moom mu dëkk ci armeel yi rek benn buur jógee dëkk bu sori ñëw ci dëkk bi daal ne waaw dëkk bi ana ñu ko doon jiite ñu ne ko ñëpp dee nañ kenn na ci des mu ne ana kooku ñu ne mu ngi ci armeel yi ñu ne lu mu fay def ah ñu ne xamuñu ko moom daal fa la dëkk buur bi daal di koy fekk ci armeel yi ne ko yow yow yow du say maam ñoo moo mën dëkk bi mu ne waaw mu ne da nga may topp looy def ci armeel yi ba pare mais damaa bëgg a xool yaxu yaxu yaxu géer yi ak géwél yi ban moo ci gën a rafet damaa bëgg a xool yaxu borom xaalis yi ak yaxu yaxu ñi amul dara ban mooy yax bu dijj damaa bëgg a xool yaxu buur yi ak yaxu baadoola yi ban moo ci gën a rafet buur bi ne ko ndax gis nga ko mu ne ko yëpp a yem yëpp a funux nëg buur bi ne ko léegi damaa bëgg nga topp ma ma dundalaat sa cosaan ma dekkilaat la ma defaat la buur teg la ci kaw dëkk mu ne après boo ma dekkilaatee def ma buur teg ma ci dëkk bi après su ma dee mu ne ah boo dee de mënuñ dara mu ne bàyyi ma dem ci ki nga xam ne moom bu ma dugalee ci paleem dootuma dee koo koy kan ku la dugalee aljanna dootoo dee mu ne bàyyi ma dem ci buur boobu comme yow après su ma la toppee damay dee rek te su ma dee dañ may dugal fii ma funax bàyyi ma ma dem ci koo xam ne moom bu ma dee ba mu dugal ma ci paleem dootuma dee allahu akbar gis ngeen kon ndeke yax yi bu ngeen demee ci armeel yi yax yi yépp a yem amul yax bu bu verte amul yax bu bleu amul yax bu orange amul yax bu noir yax yépp suuf si dana ko lekk mu ngoog ndeysaan aadama ak awa lekk nañ garab gi tooñ nañ yàlla yàlla woo leen waaye ñoom ñaar bi leen yàlla woowee ba ñu xam ne tooñ nañ lan lañ def lan lañ def lan lañ def bi leen yàlla woowee ñoom ñaar ba ñu xam ne tooñ nañ dañoo jéggalu dañoo jéggalu ñun tamit loolu luñ ciy jàngee mooy ku tooñ yàlla lan moo la ciy génne mooy jéggul mooy jéggul bañ a ñàkk jom comme iblis bañ a ngand ngandalu bokk na ci li alak nit ëllëg yowmal qiyaam mooy ngay ngand ngandalu ci sa kanamu borom nga bañ a tuub bañ a jéggulu aadama ak aw bu ñu lekkee garab gi dañoo jéggulu yàlla tabaraka wa taala waaye yàlla ne leen baal naa leen de waaye nag danaa leen dàq sans droit xam ngeen dàq sans droit mooy lan mooy fa ngay liggéey bis boo fa tooñee nga def fa loo war ta def waa ji bu lay dàq du la fay say droit da lay génne acca ci biti nga dem bu fekkee sax ku doy waar la da la ci boole tëj la da lay tëj dàq la mu nit ñu ñëwee ñaan mu ne waa léegi du ma ko tëj mais dàq naa ko iblis aadama awa yàlla dàq na leen génne na leen aljanna ñoom ñett ñépp ne leen ci biti yàlla ne leen ihbitu minha jamian ndeysaan baadukum li baadin adu wàcc leen acca ci suuf génn leen aljanna la leen yàlla génnee dàq leen yàlla yemul ci loolu mu ne ay noon ngeen di nekk yéen ñett iblis hawa ak aadama ak jaan ja mooy iblis ñoom ñëpp ay noon la ñuy nekk kenn ci ñoom du bëgg moromam ndeysaan aadama yàlla ne leen walakum fil ardi mustaqarun wa mataaun ila hiin am ngeen ci kaw suuf saxuwaay am ngeen ci kaw suuf benn temps bu ngeen di bànneexu tuuti rek ba dee ñëw ila hiin nekke doomu aadama li mu nekk ci kaw suuf lu ndaw la su xamoon li mu nekk ci kaw suuf ni mu tuutee ci yàlla kon doomu aadama ndeysaan benn jigéen dafa fekk dafa gis benn kenn di jooy benn jigéen dafa gis benn waay benn benn benn jigéen di jooy mu ne ku jigéen kii lu muy jooy ñu ne benn doomam rek la amoon doom ji dee mu ne doom ji ñaat at la amoon ñu ne ko ñeen fukki at mu ne allahu akbar lii de su ma yàlla mayoon kàttan dama koy def benn sujjóot rek mu daal di jeex benn sujjóot laa koy sujjóot ñeent fukki at mu ne moom bu ko yàlla mayoon kàttan da koy sujjóot benn sujjóot gis ngeen ñeent fukki at kon lu tuuti la ba ay nit ñoom ñu am xel ñu ne su leen yàlla mayoon ñoom dañ koy sujjóot benn sujjóot ñeent fukki at ñu sujjóot ko benn sujjóot loolu moo tax ñi dem àllaaxira bu ñu leen fa fekkee ne leen ñaata at ngeen am lu ñuy wax ci àdduna lu ñuy wax in labis na illa yowman ñeneen ñi ne lam yalbasu illa ashiyatan ndeysaan yàlla y mujj de mu ne fasalil aadin laaj leen mathématiciens yi kontekat yi na ngeen woo seen kontekat yi ngeen laaj ñi amoon juróom-ñaar fukki at ci àddina biñ demee alaxira ñaata at lañu am ñooñu biñ leen laajee ñu ne in labisna illa yowman aw baada yowm moo tax adduna amul valeur adduna lu gàtt la te xoolal doomu aadama am na doomu aadama yoo xam ne te yaakaar nañ ne àdduna du jeex yaakaar nañ ne ñoom dañuy dund éternellement loolu moo tax bu ñu nee nit dee na rek nga gis nit ñi am mbetteel te lu doy waar mooy ki dégg dee dee na nit dee na moom jàppul ne dee gaa ngi ñëw de moom day jàpp ne ndeysaan ne kooku dee na moom mu daal di nekk ci lu ko neex du tuub de Moustapha Lutf Almanfuluti kenn ci waykat yi la nee na àdduna mu ngi mel ni géej àdduna mu ngi mel ni géej mu ne nappkat bi saa yu xëyee day dem géej sànni mbaalam nee na day jàpp ay jën am ay jën yoo xam dañuy dugg ci mbaal mi mais dañuy dañuy rëcc daw mu ne waaw mu ne yow mi rëcc tey doo rëcc suba jën bi rëcc tey du rëcc suba nee na malakal mooti tamit bu xëyee day ñëw ci àdduna bi rek sànni mbaalam saraax am ñu mu jàpp am ñoo xam daneen jàpp pare ñu rëcc waaye mu ne nit ku rëcc tey du rëcc suba moo tax malakal moo ci nee na kër gu nekk dinaa fa dugg juróomi yoon ci bis bi may xool ñan ñoo war a dee juróomi yoon nit ku nekk malakal moo dina la seet si juróomi yoon mu ne bu ma ñëwee ci kër yi fekk ñuy reetaan dama yéemu am na ci ñun ñoo xam ne du ñu xëy ba yaakaar ne danañ dee tey yonent bi lan la wax ne Abdullah ibn Omar iza asbahta fala tantazir il masa wa ida amsayta fala tantazir il saba wa ud nafsaka wa ud nafsaka min ahli il qubur moo tax mu ne ko abdallah kun aabiran fi sabil ah kun nekkal ku mel ne rek ku jaar ci yoon di dem ku jaar ci yoon di dem melal ne kooku moo tax ñu bëri fii xoolal imam malik rahimahullah dund na ci àdduna ba dee amul kër bés bu nekk taalibi ne ko imam kañ ngay tabax kër mu ne xeju fi xeju fi moo tax xoolal ngay gis ñu tabax kër après après nga dee benn waaye ñëw ne kër gi ñaata ñu ne ko 3 millions mu ne am bismillah fay daal dem jël ndaraan jël ay tojkat ñëw ñu dóor kër gi ay martu ba mu mokk mu def ko ci ay oto tuuri daal di tabaxaat beneen immeuble bu rafet moom tam mu dee keneen ñëw daal ne tojal leen ma ko ci con bi fii ni mu placé mu fii tabax lii ñu toj keneen ñëw noonu rek ba àdduna jeex kër goo jënd tabax ko keneen dina ñëw toj ko tabax ko noonu la ñuy nekkee ba àdduna jeex ndeysaan aadama ak awa jéggulu nañ seen borom seen borom baal leen waaye wàcce leen ci kaw suuf ne leen nag jamono bu néew ngeen di def ci kaw suuf bu néew waaye bu ngeen bëggee delluwaat aljanna ja ngeen nekkoon da ngeen koy liggéey qaala qaala fiha taxyawna yàlla ne leen ci àdduna ngeen di dund wa fiha tamutuun ci àdduna ngeen di dee wa minha tuxrajuun ci àdduna suuf soosu lañ leen di génne gis nga fii ci aaya bi tamit doomu aadama dafa war a jàng xam ne borom bi tabaraka wa taala programme bu mu ko programme mooy ci kaw suuf dong la doomu aadama mën a dund amal amal alal judul jeex nekkal multi milliardaire demal nga jënd ci kaw asamaan benn étage américain yi ñoo fi gën a kannasu dem nañ ba ci kaw ñu ngi ca weer wa bis bu nekk ñu dem waaye yàgg-yàgg après dañuy wàccaat rek parce que mënuñu fa dund ñeneen ñi ñoo anglais yi ñoo fi gën a kannasu seen bateau yi ñoo gën a garaaw seen sous-marins yi ñoo gën a garaaw ci ci àdduna bi dem nañ ba ci suufu géej waaye mënuñu faa dëkk lu tax kaw suuf rek yàlla mu ne fii min ha xalaqnaakum fii ci kaw suuf laa tibb bind leen wa fii ha nuidukum fii lañ leen di delloo wa min ha ci suuf si laa leen di génn kon ñun ci kaw suuf rek gi nga yàlla mu ne aadama ak awa ci kaw suuf ngeen di dund ci kaw suuf ngeen di dee ci kaw suuf laa leen di génnee mënuñu dund feneen sans suuf te lu leen di wan loolu encore mooy yàlla suuf si dong la préparé pour doomu aadama mun fi dund fi dong lañ préparé oxygène est ce que am na kaw asmaan américain bu ñuy dem dañuy yóbbaale ay gaz yu ñuy noyyi ci biir géej sous-marins yi bu ñuy dem ci biir ndox mi lu ñuy yóbbaale oxygène xoolal suuf si rek la yàlla préparé oxygène pour doomu aadama dëkk fi pour doomu aadama dund fi mun a dund feneen lu la neex nag amal ci alal lu la neex amal waaye munoo dund fenn furul ci kaw suuf kon loolu tekki na borom bi tabaraka wa taala li mu wax aadama aadama ak awa bi ñu lekkee garab gi ba pare dañ doon daw yàlla nag di ko daw yàlla di leen woo waaw aadama yow aadama tafirru min nii yaa aadam tafirru min nii da nga may daw fa qaala laa ya rab yaa déedéet yow sama borom daw ma la de ndeysaan aadama ne ko yàlla ne ko aadama da nga may daw mu ne yàlla daw ma la ndeysaan laa ya rab maa farartu minka daw ma la lakin istihya akrahu an tarani fi hada alxaali aasin wa aarin yàlla daw ma la de dama bañ nga gis ma ci melokaan bii ma mel maa ngi la moy maa ngi rafle maa ngi ne dum ba pare te maa ngi la moy yàlla ci melokaan bii laa bañ nga gis ma loolu moo tax ngeen gisoon ko muy nëbbu ci garabu aljanna yi di làqatu yàlla di ko woo naan ko danga may daw mu naan yàlla déedéet melokaan bii ma mel moom laa bañ nga gis ma gis nga loolu ba léegi doomu aadama da koo doon soo soo gëmee yàlla dëgg nga benn bis nga tarxiis def loo war ta def da ngay gis sa conscience yow da ngay xam ne li nga def nii yaa du wut de am na benn nafs bu bu bu tranquille mukk sa fit bi day tëf tëfi loolu moo tax nga gis ndaw si maïs hadisu maïs ki moyoon yàlla ndaw si moyoon yàlla ñoo ne yonent bi def naa bàkkaar setal ma ndeysaan sallallahu alayhi wa sallam ndaw si dañ koo ëmbal mi ngi ëmb de njaaloo na nëbbatu kenn yëgul ne dafa ëmb moom dong moo ko xam waaye ndeysaan ba mu yëgee ne dafa ëmb mu ñëw ci yonent bi ne yonent bi damaa def bàkkaar bu rëy damaa bëgg nga setal ma ci bàkkaar bi yonent bi mel ne ku déggul wax ci mu ne yonent yow laay waxal damaa def bàkkaar danga dama bëgg nga setal ma nga laabal ma yéen ne dama nga am doom mu dem am doom ñëwaat ne yonent bi xàmme nga ma yow ne ko déedéet mu ne maay ndaw si njaaloo woon nga ne ma demal ba nga am doom am naa doom démb ndoobu jàngi yonent bi ne ko demal nga nàmpal ko ba mu fer wala yëpp ay bunt la yu ko yonent ubbil pour mu mun a daw rëcc bu demee tuub waaye mu daal di dellusiwaat keroog ba muy dellusi bëggul delluwaat dafa ñëw ne yonent dama ëmboon nga ni ma demal ba nga am doom ma am doom nga ni ma nàmpal ko ba mu fer nàmpal naa ko fer na mën na lekk mu ngi nii yor mburu di lekkal boppam yonent defal li yàlla wax ci man yonent daa digal sahaaba yi ne leen laxas leen ko ay morso ay sagar yu daal di jël ay sagar ay sër daal di muur ndaw si yonent bi ne def leen santaane yàlla ci kawam sahaaba yi tàmbali di ko dóor ay xeer Xaalid ibnul Walid moo jël benn birig daal di sànni ci bopp ndaw si bopp bi tasaaroo yonent bi ne Xaalid mah yaa Xaalid mah laqad taaba tawbatan law qusimat ahlal madina la wasiathum yonent bi ne Xaalid ndaw si tuub na tuub boo xam ne su waa Madina yëpp defoon bakkaar ñu séddale leen tuubam bi ñoom ñëpp danañ dugg aljanna ndax tiyaaba bi mu am waaye foofu lan lañ fay jëlee mooy xoolal tey bu bu benn jigéen ñëwoon ne woon la dañ maa ëmbal lan mooy sa première question ci moom sori ma yow très bien oustaz loo koy wax kan moo la ëmbal barakallah ku la ëmbal kan la kan la wala yonte ba léegi waxul ndaw si ku la ëmbal yoonam nekku ci yoonam nekku ci wax ko ko xoolal ndaw si ndeysaan moo toog waaja moo toog ba mu neex ko mu ñëw ne yonente bi man la defal li yàlla wax ci man yonente bi yónnee ci ay mbokkam di laaj ndax kii normal na ndax loolu ku ku koy wax dañ lay rey xoolal yonente bi sallallahu alayhi wasallam mu munoon na wax ndaw si acca toxal toogal fi wax wal ma kan la yónni saxaaba yi dem leen ngeen jëli ko ñun bu benn waaye ñoo ne la damaa def dara rek luy sa njëkk problème mooy kan la yaa kan la luy sa yoon ci kooku talal sa bopp talal sa bopp ñun dañoo war a tal suñu bopp ku nekk tal sa bopp yonent bi saa salaam da doon wax saxaaba yi bu ma kenn nettali lu nit def ci lu bon bu ma ko kenn nettali ndax suñ la nettalee nit lu bon lu mu def saa yoo ko gisee lu sa xel di dem ah bu ñu leen waxoon léegi man samedi damaa baali woon damaa demoon choléra ba pare tey ñu ma ñëw fi def xisasul ambiya samedi dimanche lundi tey la mardi bi ma nee tëll fii ñëw toog lu ngeen di xalaat ku nekk xolam ma ngi naan ah moo tax yonent bi ne ku kenn ku nekk ci yéen bu ma nettali nit lu mu def moo kenn nettali ndax soo ma nettali nit lu mu def su ma ko xoolee sama xel dem ci moom kon ba kenn nettali nit def dégg ngeen bu kenn dem ci ustaas naan ko kii moo lekk mburu jàmbur kii moo def lii kii moo def lële bu kenn boole bu kenn boole dégg ngeen de dégg ngeen bàyyi leen boole ah dégg ngeen yonent bi moo ko wax de mu ne bu ma kenn nettali nit lu mu def ndax soo ma soo ma ko waxee su ma ko gisee sama xel dem ci moom mbokk yi aadamaa ngi noonu yàlla tabaraka wa taala wàcce na ko ci kaw suuf moom aadama ndeysaan borom bi mu ne wa laqad ahinna ila aadama min qablu fa nasiya walam najid lahu azma aadama day man ma amoon ak moom contrat am ak dik ak moom waaye démb aadama daal di fàtte aadama yàlla daal di koy wàcce ci kaw suuf waaye aadama daal di tuub yàlla daal di koy baal yàlla bi mu koy wàcce dafa wàcce waale awa mu wàcce waale iblis ayna nazala aadama aadama fan lañ ko wàcce aadama bi ko yàlla di wàcce fan la ko wàcce ah yàlla tabaraka wa taala mu ngi wàcce aadama fan borom xam-xam yi wuute nañ aadama fan la wàcc waaye ar rayu rajih gis-gis bi nga xam ne moo gën a yey ah nga xam ne ibnu abbas moo ko génne radiyallahu anhu qaala uhbita aadama fi l hind wa hawa fi l jidda ndeysaan yàlla wàcc aadama inde mu daal di wàcc hawa jidda diggante inde ak ak arabie saoudite ñaata kilomètre la ñoo bokk benn continent mais ñaata kilomètre la ah Inde Inde ak Arabie Saoudite xoolal ñu wàcc ko fa est-ce que jamono yooyu dafa am oto dafa amoon ay fas dafa am ay saret yu ñuy yéeg dafa amoon ay hélico dafa amoon ay radar ndeysaan ñu wàcc ñoom ñaar ñuy wërante ku nekk di seen moroomam imagine leen ci jamono boobu xoolal aadama mais xoolal awa jigéen cundum ñu wàcce la ci àll jidd aadama di ko wër di ko wër di ko wër ba fekk ko benn place bu tudd Arafat kon kan moo déplacé wu ñoom ñaar ci wër bi ku déplacé wu a a- awa moom ba léegi ci ci dëkk bi ko yàlla wàcce woon fa la nekk rek dox na nag dox na dox na diggante jidda ba Arafat dox na mais ci même pays bi ba léegi moom fa la nekk rek amma aadama mañ wàcce woon Inde gis nga yàlla waxoon na ko ne ko moytandikul de bis boo génnee ci aljanna boo demee ci kaw suuf di nga toskare moo tax gis ngeen fii fii ñu nekk dañoo toskare dañuy wër mburu di wër gaz di wër courant di daw ci oto yi di tukki dëkk ak dëkk di- lu nekk di nga ko liggéey pour nga am xaalis toskare ngo yàlla waxoon na aadama fii boo fi nekkee doo xiif doo mar doo doo rafle aadama daal di lànk daal di wàcc lu mu ko jural mooy toskare aadama daal di wër awa ba daal dajeeg moom benn place bu tudd arafat ndeysaan loo moo tax ñu tudde ko arafat ñoom ñaar ñu daal di xamante foofu boroom xam-xam yi nee nañ aadama wàcc na ci kaw suuf moo ak awa ñuy dund aadama toog na salaasami asana lam yarfa raasahu ila sama yëkkatiwul boppam xool asamaan ñetti téeméeri at aadama buy dox nii rek lay def nii musul def nii du def nii mu ñu ne ko aadama lu tax yow doo xool ko asamaan mu ne damaa rus yàlla damaa rus yàlla ñu ne bu ñu dajalee doomu aadama yëpp lu ñu jooy dinañ fekk aadama moo leen ëpp lu mu jooy ngir yàlla na ko baal benn bàkkaar boobu mu def benn benn bàkkaar boobu waa léegi ñun ñun ñu ngi yor ay conteneur te kenn du jooy ay conteneur u bàkkaar te duñ jooy pour yàlla baal aadama moom benn rek la def muy jooy guddeeg bëccëg pour yàlla tabaraka wa taala baal ko benn ndeysaan mu toog ñetti téeméeri at xoolul kaw asmaan salaasami asana lam yarfa raasahu ila sama li xayaa subhanahu wa taala borom xam-xam yi nee nañ aadama ak awa am nañ ay doom ñaata doom ñeent fukki doom duñ wàccee ci kaw suuf ñeent fukki doom yooyu ñaata biir la ñaar fukki yoon la jur kon loolu lu muy tekki ah ku am ñeent fukki doom jur ñaar fukki yoon loolu lu muy tekki par deux deux deux la doon jur deux deux par ñaar ñaar ñaari doom yi mu njëkk a jur nuñ tudd Qaabil ak Haabil Qaabil la njëkk a jur ak kan ak rakkam bu jigéen bu tudd Zulaym ñaari ñooñu la njëkk a jur ah Qaabil la njëkk a jur ak rakkam bu ju- bu jigéen bu tudd Zulaym ki ki ci mujjee ñooñ ñooy taaw Aadama ki mujjee jur mooy Abdul Mughis ak rakkam Ummul Mughis ñaar ñee la njëkk ñaar ñi ñoo mujj ci taaw yi ci peer peer yi ñaar ñee ñoo njëkk ñaar ñi ñoo mujj kon haabil ci diggante ba la nekk loolu moo tax histoire ba am ndax haabil ak qaabil mënuñu nekk ay seex ñoom ñaar qaabil moo am rakk bu jigéen bu tudd Zulaym après nag haabil ñëw moom it ak seexam ku nekk dañ daan dañ daan jaawale ñaari ñaari seex yi xam nga fii lu ëpp ci ñun luñ yaakaar mooy haabil ak qaabil ñooy ñoo ñooy seex yi comme ni ñuy defee erreur rek ci aadama ak awa fi mu nekk nii da ngay gis nit ku am doom ñaari seex góor ak jigéen bu xëyee suba nit ñi di tudd mu tuddoo leen lan dan la ci jàpp lu tax mu jàpp ci lu tax lan la ma tax mu tuddee leen ko dafa jàpp ne ñaar ñi ay seex lañ est ce que Adama ak Awa ay seex lañ beneen mooy Ousseynou ak Assane bu dee ñaari góor ñu nga dégg waa ji mu ne ñaari góor la am kon karakal lañ koy tuddee lu tax loolu dañoo jàpp ne Ousseynou ak Assane ay seex lañ Ousseynou ak Assane duñ seex Ousseynou ak Assane duñ seex de Adama ak Awa duñ seex Qaabil ak Haabil duñ ay seex loolu moo la leer sunu bopp mbokk yi aadama wàcc na ci kaw suuf ma ni daa di am ak soxnaam xawa ñaata doom ñeent fukki doom ci ñaata wasin yu mu wasin ci ñaar fukki yoon ñaari doom yi mu njëkk a am qaabil la ak rakkam bu jigéen bu tudd zulaym ñaari seex yi mu mujjee am mu ngi tudd abdul muris ak umul muris aadama wàcc na di am ay doom di changeante peer yi bu amee doom tey góor ak jigéen day xaaraat ba mu am doom ak jigéen mu jël ku góor kii may ko ku jigéen kee jël ku jigéen kee may ko ku góor kii noonu la doon def ñuy am ay doom ñoom tamit seen biir aadama dund ak ñoom nekk seen yonant di leen jàngal diine yàlla tabaraka wa taala ñëw na ci hadis boo xam ne ibnu xibbaan moo ko génne mu ne yonent bi sallallahu alayhi wa sallam laaj nañ ko ndax aadama yonent la mu ne waaw yàllaa ko yónni abu zar ne yonent nabi mursal mu ne ko naam waaye hadis boobu mursal la après doomu aadama yi daal di am doom daal di bëri doomu aadama yi am doom bëri aadama di am doom doomam yooyu mu maye woon ñuy am ay doom di jurante seen biir aadama nekk seen biir di leen jàngal sharia ba benn bis nag première bakkaar bi am ci kaw suuf daa di am muy histoire qaabil ak haabil qaabil ak haabil lan moo indi seen histoire mooy noonu aadama yàlla jàngale ko ci sharia am aadama di juuyale ñaari peer yi su kii amee doom su amee doom jël ku jigéen ki may su amaatee beneen doom jël ku góor ki may ko ku jigéen ki noonu mu koy defee ndeke Qaabil moom biñ ko buggee may sëru Haabil mooy cheikhu Haabil Haabil dafa lànk lu tax ñenn ñi nee nañ cheikhu Haabil dafa rafetoon ñu bu ko may Qaabil amma qaabil seexam dafa ñaawoon xaabil lànk na du ci dal kenn moom seexam lay jël séy ak moom kenn du ko may lii moom du nangu lool qaabil baykat la woon xaabil baykat la woon qaabil sàmmkat la woon bi loolu amee aadama woo leen waar leen waxtaan ak ñoom ba léegi rek xaabil daa lànk bañ ba mu lànkee bañ léegi nag aadama ne leen comme loolu nañ nañ nañ nañ nañ def tawassul ilallah nañ laaj yàlla mu àttañu nan la ñuy def mu ne leen kenn ku nekk ci yéen ca la muy liggéey na tànn lu ci gën a baax indi qaabil dem ca xaram ya jël ci xar mi gën a ngand mi gën a duuf daal di indi teg qaabil de haabil dem ca tool ba fekk mboq yi nga xam ne da koo dindi amatuñu dërëm ak dugub ji nga xam ne amatul tus mu daal di koo indi teg aadama toog ci digg bi di leen àtte benn safara moo jógee kaw asmaan daal di jël xar mu yóbbu moo tax ñenn ci borom xam-xam yi naan xar moomu la xar moomu moom la ñuy indi waatoon keroog ba ñuy bëgg a rendi Ismaayil waaye est-ce que loolu nekk na lu wér ñu ne kuy moomu la kuy moom xaabil jege woon ak yàlla ñu ne kuy moomul keroog moom la yàlla wàccewaat waaye safara si ba mu ñëwee yóbbu kuy mi kon léegi kan moo nekk ci dëgg diggante xaabil ak haabil xaabil moo nekk ci dëgg aadama ne haabil gis nga mbir mi yàlla àtte na tracé na jox na xaabil dëgg bi léegi nag yow da ngay muñ mu ne maa lànk bis boo ko mayee ndey bàyyi naa sax sama pap kii moom léegi paa la dafa commencé naax mais gis nga yow bis boo reppee ba paa bi mu lay wax nga def ko dama lay kin xam nga léegi loolu loolu la gars yi def fi langage loolu la ñuy wax léegi gis koy wax ak papaam daan xam nga paa bi normalatul moo tax muy def yi muy def ah yow boo ko ci toppee nangam ak nangam moo tax du- du tey la mbir yi commencé de démb la bis boo jëlee sama seex dama lay rey la axtulan naka danaa la rey mu ne ko yow boo tàllalee sama sa loxo pour rey ma wallahi man duma la musa rey duma ko musa def adama daal di dogal sharia bi daal di jël cheikhu habil daal di koy may qaabil mu daal di lank foqarti ko yemul ci loolu mais dafa bàyyi ba seen pàpp tukki dem jaamu jee yàlla ci kaaba ga mu bàyyi ba qaabil di nelaw mu ñëw di xool yan pexe la koy reyee yan pexe boobu ñoom xamuñu rey nit xamuñu woon naka la koy rey xamu ko seytaane moo ñëw encore gis nga parce que waxoon na ko duma la bàyyi yow yaag sa njaboot duma la bàyyi nii ma fexe nga génn aljanna noon laay fexe yaag sa njaboot nga am problème noonu laay fexe ëllëg yowmal qiyaama yow yaag sa njaboot yëpp ngeen topp ma mën a génn yàlla dugal ñu safara yàlla waxoon na ko ne képp ku la topp yaag moom dinaa leen dugal safara seytaane ñëw daal di koy yenkewal ne ko da ngay bàyyi ba muy nelaw gis nga xam nga ne xeer la njaganaayoo nga da ngay bàyyi ba mu nelaw rek nga jël beneen xeer rek dóor ci bopp bi bopp bi day toj boobu seen papa dem na ndeysaan dem na aji iblis daal di koy won nu mu koy defee haabil bàyyi ba qaabil tëdd sàmmkat la dox na ba sonn ñëw jël ay dàllam roof ci benn roonu xeer njaganaayoo xeer bi qaabil ñëw jël ngandum doj rek daal di koy dur ci bopp bi trëf ba ba daal tas deret ja daal di tuur aadama commencé yëg changement ci kaw suuf si yëf yi doy waar aadama xam ne am na lu xew mu jël ay bagage am di ñibbisi léegi nag qaabil ba mu ree haabil ba mu ree qaabil ba pare da koo yenu yenu ko di wër ak moom xamul nu mu koy def mu rëccu fekk c'est trop tard wër ak moom di wër yenu ko di dox ak moom di yéeg montagne yi di dugg xur yi xamul nu muy def ba mu toogoon di noppalu yàlla daal di yónni benn baaxoñ ñaari baaxoñ baaxoñ yi ñëw di xeex ba benn bi rëy moroomam moo tax léeg-léeg léeg-léeg am ñu critiqué ne euh, théâtre théâtre bokkul ci ci islam wala kenn waru ko def pour jàllale daawa ah kay loolu misaal yu bari ñëw na ci xanaa kay bu ñu ko defee bu bon mais bu ñu ko defee bu baax ba mu normal loolu dara nekku ci histoire bi rek mu ngi nii benn ngi nii yàlla yónni na ñaari baaxoon ñu ñëw di xeex ba benn bi rey benn bi daal di koy suul kee toog di seetaan loolu jàngale la di Ibrahima wékk na ñëw na toj jaas yi yàlla yëpp daal di jël jaas ji wékk lan la Ibrahima doon jàngale foofu biñ ko laajee man faala haza bi aliyatina lu mu wax loolu jàngale la rek nañu fexe ñu koy jàngale ñu def lu baax wax lu baax ba nit ñi xam ne lu baax lañu war a def paa nag comme yii comme bii am nii nga xam ne dara baaxu ci Ousseynou ak Assane ñëw nañ ci benn góor bu ñu séen mu jàpp-jàpp bu baaxul ñoom ñaari ñëw ñu ne nañ dem jàngale kee jàpp ñëw ne ko ñun ñaar dañoo werante nu ñuy jàppee dañoo bëgg nga arbitre ñu ñu nga xool ñun ñaar ku dàq jàpp ñoom ñaar ñu jàpp jàpp bu normal ñu ne paa bi àtteel mu ne "Hé, man maa munul man ngeen di jàngal xam nga bu ñu ñëwoon ñoom ñaari xale yi naan ko eh eh, paa paa eh paa yow munoo jàpp de eh." paa bi da leen di dóor wala mu wax leen lu bon wala mais dañoo ñëw ñoom ñaar ne ko ñun ñaar de dañoo xuloo ku ne kan moo dàq jàpp dañoo bëgg nga xool ñu ku dàq jàpp ñoom ñaar bi ñu jàppee pare paa bi ne maa munul man ngeen di jàngal gis nga kon yàlla tabaraka wa taala yónni na ñaari baaxoñ baaxoñ yi ñëw nañ di xeex ba benn bi rey moroomam daal di waxtu ba mu xóol daal di suul moroom bi lan la qaabil wax ba mu gisee loolu mu daal di rëccu mu ne ndax man damay lot suul sama mbokk mii comme baaxoñ bi ni mu suulee mbokkam incha allah mardi bii di ñëw ci lañ leen di indil aaya yi ñu ñaan buur yàlla tabaraka wa taala mu jéggal ñu njuumte yi السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا بلال عزين Thank you.